Ndangaan daan na Toubacouta arbitre bi sifflé na ndeysaan Caatu Waalo ak Franc ndeysaan ngi noonu ndeysaan Libidoor a ngi noonu ndeysaan Toubacouta lamb nii la ndeysaan Franc a ngi noonu moog Caatu Waalo Caatu Waalo def na la forum da biit jël na tànk ba Caatu bañ na Franc jël na tànk ba jël na tànk ba fu muy mujj Caatu bañ na Caatu Waalo Franc ndeysaan fàqan na ko mu bañ Franc Caatu Waalo ña wër na ko ndomba wër na ko ndomba Caatu Waalo wër na ko ndomba bañ na Caatu bañ na ndeysaan Caatu Waalo champion la waaye doole doole doole doole doole Franc daan na Waalo Franc daan na Waalo